Euh, Salam alaikum, donc euh, man la Amna Ndiaye suis de l'Université de Dakar euh, man maay président jury 1506 voilà donc on a 418 candidats 218 qui dañuy def L prime 200 ont def LA. voilà donc pour l'instant les lépp mu ngi jaar yoon épreuve yi waaye commencement amna problème bu ndaw ndax ndaxte candidat yi da am ñu am dañu ñëw indalé sen téléphone portable ci bir salle te téléphone portable comme ni ko ministre waxé ni ko directeur office di wax ba waxé téléphone portable waru dugg ci salle bi donc ñun ñu ñëw fekk ko ci salle bi donc ñu di appliqué li ñu yoon wax yoon limu wax ci loolu moy da ngay exclure candidat bi donc tollu nañ ci 64 candidat yu indi won sen téléphone ñen ñi sax am nañu ñaar ñett téléphone yu ñu indalé téléphone bi mu nekk 77 téléphone bi waaw merci beaucoup. ndax mën nañu yaakaar xale yi mën nañu composé waat yeneen. déedéet loolu koy amul yaakaar parce que exclure mooy mooy dàq nañu la. léegi nag li ci des mooy ñoom après man sama wareef def naa ko après ñoom dañuy dem office di bac ñu xool commission discipline kañ lay waxtaan pour ñu jéggal leen wala ñu bàyyiwaat leen ñu def rattrapage wala beneen année ñu defaat bac. téléphone yi da ngeen ko fekk ci seen poche fan ngeen ko fekk. si ñu si gën a bëri ci seen saako la newoon. téléphone yi si bëri gën a bëri ci seen saak lañ ko fekk. mais ñoom dañ jàpp ne mënoon nañu waxtaan. waxtaan amul parce que ci seen convocation kenn ku ci nekk ci ginnaaw bind nañ ko ne la téléphone warul ñëw ci saak ñu communiqué njiit yi communiqué si directeur communiqué si wax communication bi nekk na ci olof nekk na ci français rajo yëpp teg ko wax parents yi ñu def ko donc fuñ toll nii jël nañ si mesure nga fàttaliwaat ñu ñaata candidat ñoo composé si seen jury ak ban jury voilà donc statistique booy mu ngi nekk 418 euh, candidats série L prime comme ni ma ko waxee léegi cent 218 la série LR ñu nekk 200 donc am naa ci L prime bi 6 yoo xam dañoo absent waaw ci LR bi ma am ci 5 yu absent waaw. contrôle bi da ngeen ko def euh, ci ñaata classe. téléphone yi ngeen jàpp ci ñaata salle quoi. bon ci salle yëpp saal bu ne dugg nañ fa. ñaata saal téléphone waaw saal bu ne dugg nañ fa bon mënuma xam ma nombre salle bi mais saal bu ne dugg nañ hmm. jërëjëf merci beaucoup.